nga xam ne tamit mooy rapport li jóge fële ca dialogue bi tamit andi nañ ko. bonjour patria du Sénégal loi d'amnistie bi nga xamante ne ne moom la ñëpp doon xaar génn na rendre nañ ko public tey euh, li nga xam ne tamit mooy rapport li jóge fële ca dialogue bi tamit andi nañ ko euh, Macky Sall ci palais bi. seeni photo Thiendella Fall euh, Sidiki Kaba. Ismaïla Madior Fall et tout bon léegi balaa ma leen di wax si loi d'amnistie bi dama leen di wax d'abord lan mooy amnistie euh, déjà il faut pas que ngeen jaawale ñaar dafa am amnistie am grâce grâce président moo koy def amnistie loi la bu ñuy voté ok léegi grâce moom bu ko président di def day fekk ne yow condamné nañ la ba pare président décidé ne yow dañ lay baal wala dañuy wàññi sa peine ba pare président bu la gracier grâce boobu mu la accordé condamnation bi ci nekk du deñ day des ci sa casier judiciaire kenn mënatu ko dindi leer na su ma ñëwee ci amnistie na déjà dañuy voté loi d'amnistie le président mooy toog décider ko même si c'est vrai am na bu dee si suñu cas am na majorité assemblée nationale te loolu maa ngi ciy ñëwaat léegi donc moom euh, amnistie bu mu bëgg a def amnistie général maanaam ay jëf la yoo xamante ne ne dañ koy jiiñ ay nit wala ñu condamné ci ay nit te loolu noonu yépp ñoo ko bokk maanaam ci biir waa bi dañuy wax ne ne par exemple exemple laa leen di jox ñu ne waa képp koo xamante ne ne dañ laa jiiñ sàcc wala dañ laa jiiñ viol wala dañ laa jiiñ euh, euh, diffamé nit wala affaire yooyu noonu euh, ci diggante diir bi ba diir bi yow baal nañ la léegi ñëpp ñi nga xamante ne ñooñu dañ leen condamné ci yooyu noonu ñu cité ñooñu ñëpp dañuy effacé li nga xamante ne ne condamné nañ leen ko wala ñu leen ko doon toppee ci seen ay dossier j'espère que leer na voilà léegi ñoom amnistie bi nga xamante ne ne ñu ngi ko bëgg a def euh, damay ñëw si loi bi ma wax leen exactement luñ ci wax léegi nag dafa am lenn lu ma buggoon préciser am na benn piège boo xam ne moo sama xalaat la wax ma ne loolu mooy am mais euh, ci amnistie mën nañu amnistie c'est vrai et bu boobaa euh, li nga xamante ne mooy di amnistie bi ñu def bu dee condamnation daf ci am mën na deñ automatiquement tout comme am na type d'amnistie bu ñuy def boo xamante ne ne yow mi nga xam ne yow la ñu amnistie yaay def démarche yi auprès euh, des greffes et tout pour que euh, li nga xam ne mooy condamnation bi nekk sa casier judiciaire ñu mun ko dindi donc dama koy wax nii rek waxuma loolu mooy am mais pour nit ñi nañ ko bàyyee xel pour ñii di wax waxu Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu naree def démarche naan nañ ko comme que amnistie nañ ko ni ñu dindi condamnation tel ou tel ou tel bu nekk ci casier judiciaire am bopp maa lay koy def comme ñu ngi koy faral di waxee loolu benn la c'est juste au cas où bu dee loolu dañ koo làkk ci biir léegi pour ñii di wax ne ne ndax euh, loi d'amnistie mën nañu ko Euh, dindi maanaam mën nañu voter beneen loi bu koy dindi am voilà mën nañ koo court-circuiter wala de choses comme ça c'est bien possible exemple bi ma leen di jox mooy bu Blaise Compaoré mi nga xam ne moo nekkoon président bu Burkina bu mu defee ñaawteef yu bëri te ki ko jiite woon nekk toujours les généraux nekk général Diendéré général Diendéré moom mun a actuellement fi may waxee kii nii ba léegi nii mu ngi ci prison bi dañ koo tëj casso euh, te moom moo nekkoon bras armé wu ki nga xam ne moo nekkoon Blaise Compaoré beneen exemple bi mooy fële ci Argentine Argentine de 1976 à 1983 rey nañ fa plus de 30 000 citoyens argentins foofu noonu ci réew mi ñu jàllale benn loi d'amnistie boo xamante ne ne en 1987 pour nëbb crime de sang yooyu noonu yëpp nga xamante ne ne ñoom euh, militaires yi defoon nañ ko euh, et tout mais il a fallu des années na après plus de dix ans après ñu voté beneen loi boo xamante ne ne euh, moo teggiloo noonu pour ñu mën a def justice pour trente mille nit yooyu noonu nga xamante ne ne rayoon nañ leen donc mën nañ ko diddi euh, mais nax du yomb waaw dama bëgg rek mu leex aussi du looy xëy rek noonu rek facilement nga dindi ko y a des procédures très très longues yoo xamante ne ñii di wax ne waa buñ ko defee rek bu ñëwee rek dinañ <laughs> ko dina fekk ñii daw daw nañ voilà donc xamee leen ko noonu daal dama leen di jox rek information yi après vous en faites ce que vous voulez léegi nag ñu wax ci projet de loi d'amnistie bi ci boppam. donc boo xoolee ci première page bi ñu ngi wax ne ne projet de loi bi euh, dañu ko def pour euh, climat politique bi ak climat social bi mu apaiser wu dañu ko def pour euh, cohésion nationale dañu ko def pour démocratie pour ubbiwaat mbirum politique bi. ñu ngi ciy préciser ne ñi nga xamante ne ne euh, ñooñu la ñuy toppee yenn faits criminels yi wala correctionnel euh, ñu noon yëpp euh, dinañ mën a léegi jëlaat li nga xam ne moo di seen ay droit de vote ak droit d'élection loolu nag dafa am directement ku ñuy ciblé xam ngeen ko xam naa ko ñu ne tamit ci état d'esprit boobu noonu toujours président de la république dafa décide ne dañu war a bal bépp sénégalais ne ne dañ lay topp ci biir Sénégal ak ci bitim réew euh, ci période février deux mille vingt et un ba février deux mille vingt bon euh, ma ñëw ci li nga xamante ne moo di article yi article premier bi ñu ne amnistie nañu ñëpp ñi nga xamante ne ne euh, am na ay ñu leen di toppee lu criminel wala lu correctionnel. ci ay dell yoo xamante ne ne wala crime yoo xam ne ne am na entre le premier février deux mille vingt et un ba le vingt cinq février deux mille vingt ñu defee ko biir Sénégal am bitim réew. beneen bi ñu ne amnistie bi nii na euh, mënuñu ci dellu ginnaaw euh, mënuñu waat remettre pen yi euh, nii li nga xamante ne ne mooy déchéance yuñ ci def ak yëpp yëpp loo xamante ne daal en tout cas concerné na. Euh, ay crime wala ay peine ñu ne tamit euh, amnistie bi euh, <laughs> mënul nekk préjudice pour ñëpp ñi nga xamante ne ne ñu ay ayant droit lañ ñu ne tamit mënuñu def contrainte par corps ñëpp ñi nga xamante ne ne dañ leen condamné ba pare ñu bénéficier ci loi d'amnistie bi article 4 bu fekkente ne contestation dafay am ci loi d'amnistie bi fa ci cour d'appel de Dakar lañ koy defee te il faut mu tegu ci condition wu article 735 u code de procédure pénale article 5 bi ñu ne ñu ngi tere bépp magistrat wala fonctionnaire muy wax wala muy ubbi dossier judiciaire yi mu nekk ci police bi mu nekk ci tribunaux yi mu nekk tamit ci li nga xamante ne ne moo di ci biir administration bépp document officiel mu nekk euh, lu ñu condamné wala loo xam ne dafa tax ñu wàccee quelqu'un wala ñu dàq quelqu'un wala lu mu mënti doon euh, amnistie bi effacé na lépp te waratuñu ko ubbi nee nañ tamit euh, li nga xamante ne ne moo di loi d'amnistie bi concerné wul euh, li nga xamante ne ne moo di ay arrêté wala ay décret yoo xamante ne jël nañ ko ci fonction publique bi wala ci ordre nationaux yi maanaam euh, armée wala genre affaire yooyu noonu <laughs> donc en fait en gros pour ngeen xam ne ne rek euh, Macky Sall grâce à son tailleur de la constitution taillé na très très bien lu mu bëgg e li muy andi mooy ay spéculation de plus pour ñuy wax ne ne xaa ah, gis ngeen dil biñ doon wax bi parce que li nii yëpp ça va profiter à Ousmane Sonko. Euh, dina mën a jëlaat yi nga xam ne moo di ay droit wam et bu leen dugg ci piège boobu surtout les patriotes yi di wax ne ne au moins président Ousmane Sonko dina mën a éligible à nouveau du ma wax nag à xam naa ne moom mën na lijjanti boppam et je ne pense pas que ñi nga xamante ne ne euh, dañuy ne président Ousmane Sonko su ko defee dina mën a bokk président Ousmane Sonko bu ñu waxee rek day bokk maanaam dañuy rebattre encore les cartes te loolu question de principe lañ ci war a tëddee tànn nañu 19 candidats yi nañu dem élection point barre amul leneen bu leen dugg ci piège u Macky parce que lii muy def nii rek beneen trahison la amul droit def lii muy def nii amul droit effacer ñoom crime yi nga xamante ne def nañ ko amul droit effacer vol yi nga xam ne def nañ ko amul droit effacer injustice yi nga xamante ne def nañ ko effacer na ba ne dafay effacer diffamation yi nga xam ne ne am na mu nekk ci télé mu nekk ci réseaux sociaux wala leneen ak leneen dañ koy baal ñëpp loolu kay mooy ne Ousmane Sonko va retrouver son éligibilité mais y a un piège aussi petite précision loi bi nii du loi constitutionnelle donc du trois cinquième u député yi ñoo koy voté pour mu jàll maanaam soxlawul 99 députés sur 165 pour jàllale ko au contraire il suffit de un tiers maanaam 65 députés bu ñu voté pour loi bi dafay jàll ce qui j'ai envie de amuñu benn chance pour que loi bi nii Macky Sall du ko jàllale donc nan la ñuy def pour contourner yooyu noonu yépp nan la ñuy def dans la communication pour bañ ñoom après ñu jël yépp comme ni ñu ko commencé ni ñu ko bindee sax boo xoolee xam ne Ousmane Sonko la ñu bëgg a sëf seen ne si bii nii nan la ñuy contourner loolu nan la ñuy nekkee ñu ñëpp bloc ensemble euh, pour que ñii bañ a jëm fii ñii bañ a jëm fii ñii naan man na Sonko wala man na Sonko bokk rek nañu xalaat ñi deele nañu mm-hmm. xalaat ñi nga xamante ne ne ñoo ñoo ñàkk seen i cër bu ñu toogee ba ñu ñu tëj ci kaso bi ñu ñu torturé génn naan bëgguñu loi d'amnistie bi ñun on est kii pour wax ne ne on est pour cette loi d'amnistie bi est-ce que ñun war nañu wax plus que ñi nga xam ne ñooy victime euh, état bandi bi di état Macky Sall voilà donc euh, ñu remercier suñu sœur boobu ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la def Euh, décortiquer leen ci ni mu ko manee vraiment faire ses recherches indi leen li nga xam ne moom mooy résultat euh, recherche am maanaam ku bëggoon xam différence su amnistie ak grâce présidentielle am na loo ci xam ba pare xam aussi loi d'amnistie bi li nga xam ne ñoom band yi moom lañ ci tënk waaye man dama bëgg doomu sénégalais yi ngeen xool euh, avec un verre à demi rempli voilà euh, kii di makisal Sall bu leen fàtte ne c'est quelqu'un depuis mën naa ne sept ans six ans bientôt sept ans mi ngi manigancé di manipuler di tàppale di wuruj di waraj di njuuj njaaj ci kaw Ousmane Sonko ak ñoñam donc euh, ba léegi nag fi may wax ak yéen ni amu ci ndam ndax boo leen xoolee ñi Macky sàll àndal yépp benn kàndu bi la léegi dem nañu ba tuddee ñu ñun borom pensée unique maanaam Sénégal tey lépp lu fay dox ñun ñoo koy doxal ku ñu bëgg mu wax mu wax ku ñu bëggul mu wax du wax loolu mooy suñu force donc dama bëgg a sénégalais yi aussi ngeen xam ne fan yii laajoon nañ fi nee nañu leen ramener tous les crimes que Macky Sall avait fait en fraîcheur ñu koy dugalaat doomu aadama yi di ko gis Macky nag mën naa jàllale ay loi parce que nañu wax dëgg moom moo yor majorité mécanique assemblée nationale waaye dama bëgg ngeen xam ne lu loxo def loxo mën na koo dindi te comme ni ko suñu sœur bi waxee te ñu nangul ko ko nag c'est noppi ñëw waaye bëgg naa sénégalais yi xam ne xam leen ne Ousmane Sonko ñàkkul fayda boobu ñàkk fayda boo xam ne yow dangay jël sa bu ne weng nga def ko nga yaakaar ne moom day ñëw nekk ak yow gentleman defe naa foofu ngeen jaawaatlee lu gatsa gatsa tekki xam ngeen li wolof dina gàtt gatsa gatsa mooy boo defee yëfu maa tey man ma fayu ak yëfu maa tey œil pour œil dent pour dent donc soit ñii nga xam ne Macky Sall daf leen am amnistie ñu daw ba kenn xamatul fu ñu nekk ci àdduna bi ñu xaru xaru du mën a daw soit ñu xaru walla illa ñu nekk foo xam ne wax dëgg yàlla dañuy dem rek ne leen ciix ñëw àtte lii ngeen di wax ni yëpp neex na mais loi banditisme bi maanaam amnistie loi bu Macky sàll indi fii taaye suñu constitution soxlaatul ñuy dem assemblée nationale pour di ko dindi déedéet dafa mel ni loi bi masta jàll yéen ngeen defe ne ñun préparé wuñu Macky Sall ak banditisme am ak ay criminel ak ñaawteef bi nga xam ne def na ko ci senegal ba ba fi ñu ba suñu jon yàlla tey c'est que Macky Sall a fait Macky la see amul benn doomu aadama ci àdduna bi boo xam ne mën na ñëw taxaw ne day défendre Macky Sall ak ñëw président bu dem ba ci commander ay armes illégaux dugal ko palais de la république di ko jox ay samba boy kooku amul amnistie amnistie jinne bu muy passé ci senegal ba mu ci rëcc président boo xam ne dafa jàpp ay doomu góor yóbbu leen ci kaso bi ñiy wér peng mu indi leen ak ay gàllankoor ay lagg-lagg ay loraange fetal ay nit dinaa leen jox bi gën a dee bi gën a dee xam nga par exemple je vais chose xanaa loolu boog bu dul dara ñun ñëpp d'accord nañu loolu xanaa Macky Sall mënul amnistier boppam déjà cour pénale internationale xam nga loolu ñun ñi xam yëpp xam nañu leen loolu amul possibilité xam nañu ne Macky Sall caaxaanam mi yëpp Sénégal la dama leen di jox exemple dossier CPI c'est un ba cent soixante-neuf ma jox leen communiqué au titre de l'article quinze du statut de Rome visant monsieur Macky Sall monsieur Antoine Félix Diome monsieur Moussa Fall ainsi que 109 autres individus concernant la commission de crimes contre l'humanité sur le territoire du Sénégal entre le mois de mars 2021 et de juin 2023. criminel yooyu bokk na ci doomu Macky sàll ay doomu aadama yu ñu rey ci mbedd yéen a ngi gis ay xale yu ndaw yu ñu jël seen bakkan yéen a ngi leen di gis les voici ay nit yu to yu tëdd ci hôpitaux yi lagg ba faw yéen a ngi koy gis la dossier du CPI ba léegi boo leen xoolee ay doomu aadama yoo xam ne ay gaañ-gaañ yoo xam ne maara day taali mooy yi ñu doon woon àdduna bi ci communiqué boobu ba léegi am na beneen communiqué boo xam ne nee na objet de décès d'individu yi individu yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu cité leen ñoom ñëpp ci dossier bi ba léegi même dossier boobu boo leen xoolee ñu am ci kii nga xam ne mooy doomu Macky sàll bi muy Amadou Sall ak ay nerveem mu am nervi yi yoroon fetal yi di nëbbu ci parenthèse yi di tiire sur les populations lépp signé et déposé à la yi numéro 9 kenn waxatu ko ñu am ko ñu ñëpp numéro 9 nervi Macky Sall yi partout de gauche à droite ñu am leen xale yi ñu doon dóor ci bopp di gaañ ngeen gis partout les plaintes tous ces jeunes qui ont perdu la vie ñi perte seeni ngaam ñi ñu dóor à balles réelles ba léegi commissaire sànkare Baara Sangaré ak ñoñoom yéen a leen di gis ak Bokar Moussa Yàgg ñoom ñëpp ñu ngi fi ak ñoom Amadou Sall ñoom ñépp ñu ngi ci dossier CPI bi lii yëpp Macky sàll amu ci benn contrôle ay doomu aadama ñoo tëdd ni ñuy xotti seen biir seen butit yi di ci ci gouvernement Macky sàll bi ay nit à balles réelles ay ñoom torture Pape Abdoulaye Touré kii ñëpp ko gis à travers le monde ce jeune là liñ ko def àdduna bi yëpp gis ko ak ñeneen te loolu bokkagul sax ci dossier yu bees yi nga xam ne yokk nañ ko ci ndax bu leen fàtte ne prisonnier politique yi lii yëpp laata bañ koy def moom Juan Branco ci boppam ñamagul woon rëbës ak bandi bii kii nga xam ne moom moo jiite woon euh, euh, kii ba Macky Sall def ko ministre léegi Biram fay voilà Biram Fay Biram Fay mii ba léegi ministre la parce que comme Macky Sall moom nee na gouvernement de combat la bii lañu fa dugal ak Amadou Sall xool leen ko bii nii Amadou Sall mi ngi CPI yéen a ngi koy gis voilà donc euh, lii la ñu am te ñun ñëpp ñu nekk ay sénégalais ñoom duudu ka yëpp ñu ngi ci dossier CPI bi donc c'est seulement naturel mes frères et sœurs c'est naturel c'est naturel que Macky Sall ak li ko topp nii yëpp ak li ko wër yëpp mu jékki-jékki rek mu ne day effacer lépp loolu mooy nax sa bopp c'est très naturel pour luy parce que Macky Sall watul guddi Macky Sall tey lan moo tax ngeen yaakaar ne ba mu xoolee àdduna bi yëpp Souleymane Jules Diop di ñu fàttali ne Macky Sall ut na kër Maroc fàtte laaj leen seen bopp loolu boobu question pourquoi Maroc pourquoi Maroc yéen xam ngeen ne loi boo xam ne dictateur ab samba boy mais loolu yombul ba dee mi ngi mel ni sàcc bu sàcc ñu yóbbu ko ci kanamu juge mu ne eh juge juge léegi sol naa robb jéggal naa sama bopp jéggal naa sama bopp loolu la wax juge bi mais pourtant wax na kàllaama bi mais est-ce que am na validité non amul validité un criminel kii fait tous ces crimes contre l'humanité mu xam ne ay ay Macky Sall fi mu ne daanaka xam na ne loi bi moom du tenir waaye dafa am benn mbir bu Macky Sall di essayer loi bi moom xam na ne du tenir waaye il est en essayage essayage bi mooy lan Macky Sall mi ngi essayer ba xam ndax ñi ñëw jël nguur gi ci ginnaawam dinañu nekk ay gentlemen jël seen temps dem assemblée national fal ay député yu bees tas assemblée nationale indiwaat projet de loi jéem a passé waat projet de loi pour acheter du temps maanaam li américain di ne buy time yow nga defee ne di nga ñëw réew mu mel ni Amérique ci commets tous les crimes du monde nga dem nga ne voilà damay dem ñu paasal ma benn loi d'amnistie ma gaawantu pour loi boobu après protéger ma ci lii wala déedéet ils vont bloquer tous tes comptes bancaires à travers le monde yéen sàccu ma ki yi tous vos comptes bancaires seront bloqués à travers le monde bu ma nee sàcc nag xam ngeen ñi may wax mooy général Moussa Fall par exemple général Moussa Fall c'est un multimilliardaire xam nañu gaz euh, station essence yi nga xam ne fa lay blanchir xaalisam xam nañu ñaawteef bi ngeen nekkee ci réew mi yépp ne vous en faites pas xam nañu seeni ay immeuble xam seeni ay terrain xam seeni ay ñaareel xam seeni ay doom xam seeni ay prête-noms on connaît tout ça lépp xam nañ xam nañu lépp lépp rek loo leen mën a xalaat ñun xam nañ ko ñu ngi ko teg di leen xaar ak ñaawteef fii ngeen def yëpp yéen ngeen mën a toog fii yéen vous avez vécu dans la délinquance et vous avez gouverné dans la délinquance ngeen def li leen neex yëpp ba tey ngeen ne dañuy dem rek passer benn loi bu ñu passé loi boobu waaw vraiment Sénégal et damay nekk certains patriotes il faut fair attention du mën a sax patriote rek mais ñi nekk ci réseau bi di wax def leen attention gars yi maa ngi leen di jox benn alerte déglu leen ma bu baax man maay wax ak yéen ngeen déglu ma encore bu baax maa ngi leen di defal benn alerte nit ñi ngeen di seetaan ci télé yi di leen seetaan ci live yi di leen seetaan ñuy wax yenn saa yi dinañu mel na ñu ngi attaque gouvernement waaye saa leen boo leen leen déggee di wax waxu dialogue waaw Macky Sall baax na Sénégal nañ ko waxtaane rek xamal ne ils ont été corrompus parce que man mii approcher nañ ma ay nitu Macky Sall approché nañ ma ba pare nee ma waaw dimbali leen ñu ko Macky mi ngi def am nasti bi nii waaw yéen ñëpp xam nga même bu dee ànduloo ak moom sax melal ni rek voilà da nga koy jéebaane nga ne ko rek waaw ngeen ne voilà Macky def na lu baax waaw après mais ci suuf nga mel ni ku koy attaqué on va comprendre ñu jox la nàngam man def nañ ma ko ba pare. je vous ai dit que ci combat bi képp ku changé communication tu as été corrompu déglu leen ma ci combat bi. nee naa leen combat bi képp ku ci changé ni muy waxee rek jënd nañu ngoram jaay na ngoram déglu leen ma encore une fois man maay wax ak yéen man mii man te gele les xam ngeen ma man caaxaanuma ñëw nañu ci man ay nitu Macky Sall la ne ma waaw xam nga Macky waaw léegi vraiment il a changé waaw dafa bëgg a bàyyi Sonko waaw yéen ñëpp da ngeen di génn rek supporter am amnistie bi voilà ngeen ne waaw réew mi dañ ko war a waxtaanee dañ ko war a dialoguer waaw bien d'accord xam nañ ne mën ngaa mel ni sax ànduloo ci ngay bañ-bañ lu loolu yëpp dil la donc def leen attention pour ngeen dégg ci biir patriote yi moom ku jóge fale naan leen ah réew mi de dañ ko war a waxtaane waaw dañ ko waxtaane jënd nañ sa ngor parce que def nañ ma ko man déglu leen ma encore une fois ils me l'ont fait moi ils m'ont approché moi et ils ont approché d'autres personnes que je connais waaye ñi dëgër toujours ñu ngi dëgër nee leen hé ñun wuñu Sénégal allez vous faire foutre donc bàyyi leen loolu xel ñi ngeen di dégg ñuy layam layame bàyyi leen xel ne jënd nañu seen jaay nañu seen ngor parce que combat bii ñun xam nañu nu mu demee ñun xam nañu nu mu demee komba bi képp ku fi ñëw démb nga dëgër tey nga ñëw nga yolom mooy gaay yi diw nañ la vaseline niin nga tooy nga xepp ratax nga ñun on connaît ce qui se passe ndax bis bu ne ñu jéem ñoo jënd bis bu ne ñu approcher ñu ay nitu Macky sàll ñi muy yónni ay ñoñoom ñuy ñëw di jéem a jënd suñu ay ngor on le sait et on le connaît je le dis et je le répète patriotes yi bàyyi leen loolu xel te delloo siwaat leen seen xel voilà bu leen benn nit ñëw fii di leen ne waaw waaw Macky Sall moom wax dëgg yàlla voilà nii na le Macky Sall c'est un serpent il ne change pas il se déshabille pour encore grossir c'est tout Macky Sall nee nañ la jaar ñàngoor foo ko fekk muy simmi der bi ci kaw c'est pour mu gën a rëy te saa bu rëyee day continuer nekk jaan mais cette fois-ci jaan bu gën a rëy donc bàyyi leen loolu xel bu leen nangu déglu benn doomu aadama buy ñëw di leen divertir di leen wax ay waxi dof on reste concentré et on reste déterminé Macky Sall n'est pas à négocier avec ku yaakaar ne man ngaa négocier ak Macky Sall demal nga laaj ñoom Khalifa Sall demal nga laaj ñoom Idrissa demal nga laaj ñoom Karim Wade mu njëkk waxuma Karim Wade mu mujj bi de kii di dof dof lu di génn nekk ci ay géntam yaakaar ne man nañ koo jox Sénégal Karim noo wolof waxuma boobu Karim dama ne delloo siwaat leen seen xel te comprendre ne bi ma leen ko waxee amaana quelques mois passé ba mu amoon samay xaritu PDS yu génn yu ma mere woon lool ma ne leen Karim Wade mi ngi diil ak Macky Sall mi ngi wax ak moom waxoon naa leen ko bu yàgg nee naa leen à cent pour cent Karim Wade mi ngi diil ak Macky sàll nitu Macky sàll yi Macky sàll yónni ci Karim Wade même nit ñoo ñu lay yónni ci ñun loolu laa am lu ma leen wax Karim Wade ba ma leen ne mi ngi diil ak Macky sàll ñu bari ba ci sama xaritu PDS yi dañ ma mere ñu ne ma waaw ñun ñoo bokk kaa waruloo woon waxee nii léegi anamu léegi defe na mbaa mbaa xol yaa ngi feex mbaa lépp leer na mbirum Ousmane Sonko bii du ñëpp ñooy arrivé à bon pont à bon port gis nga lii ça c'est un combat de souveraineté dina am ñuy yéeg ci kaar bi bees comme dina am ñuy wàcc laata kaar bi di yegg ci destination ba la baaxul yépp dana wàcc te ñooñu dañu warul woon yegg ak ñun bàyyi leen loolu xel te bu leen ci am sentiment dina am naafeq yu bari nee nañu leen naafeq manta bëgg Ousmane Sonko yéen a ngi dégg tey ñu bari ñuy yuuxu Sonko laa gëm billaay moom laa bëgg mooy sama ndey mooy sama baay waa Sonko Sonko c'est parce que xam nañ ne turu Sonko bi dafa commercialisé jaay na boppam ba pare tour bi donc loolu moo tax di ngeen dégg ay sonkist yu bari mais doo leen gis ay sonkist yu bari xaw ma ndax dégg ngeen boobu wolof di ngeen dégg ñu bari ci ay wax ne Sonko lañu gëm wala ñun Sonko parce que Sonko moo fi ne te Sonko ku ko tuddul daanaka kenn du la faale waaye di ngeen gis ay nit yoo xam ne di ngeen xam ne ñii de ba ñu tàmbalee ba léegi ils son constants dans leur démarche duñu changer bokkuñu ci sentiment xalaatuñu sentiment faalewuñu ku leen mere faalewuñu ku leen bëgg ils sont toujours constants ba ci loolu nag lay ñëwaat ndax fan yi am na sama xarit yu bari ndey ndeysaan du ma ne sax ay xarit waaye am na ay nit yu bari ndax man awma xarit nag ni ngeen may gisee ni j'ai pas d'amis awma xarit ku jàppee sama bopp sama xarit sànni nga ko ci parenthèse man nee naa leen benn xarit laa am ci àdduna bi te wax naa ko nit ñi fukki yoon ak juróom ñi ko dégg dégg nañ ko ñi ko déggul dégguñu ko ay am di jàmm laa am ak ay àndandoo wala ay ay ay combattant yoo xam ne ñun ñooy ànd di combattre mais xarit benn laa ci am ndax xarit mooy ki ngay gis bu gënee metti bu mettee kooku la sa njaboot di dégg di ko gis boo jaaxlee kooku la sa njaboot di metti di ko gis du opportuniste xaarul dara ci yow loolu mooy xarit te benn laa ci am léegi nag ma ñëwaat encore ci kàddu Maimouna Ndour Faye dama koy puus rek dama ci xuus rek jaaraat ci parce que a nduur Faye ba mu tàmbalee ba léegi ba mu taalee teleem bi ba léegi c'est pour éliminer Ousmane Sonko mook Cheikh Yérim sekk looloo leen tax a jóg pour rey Ousmane Sonko gaañ Ousmane Sonko faagaagal Ousmane Sonko ñaawteef bu ñuy teg Ousmane Sonko ci may a nduur Faye lañ koy jaarale wala ci Cheikh Yérim sekk donc awma benn yërmande pour may a nduur Faye ñi am yërmande pour moom man man ngeen maa bañ a déglu wala ngeen déconnecté dem jusqu'au contraire jusque ba ah ba ba naaj gi fay li yi di wax jusqu'à l'extinction du soleil li ngeen di dégg yëpp di ngeen dégg ñu ne leen paaka lañ ko jam fii di ngeen dégg ñu ne leen ki ko doon agressé ba mu xëccee saak bi waaye ba léegi rek nee naa leen DG bu port autonome bu Dakar moom moo nekk coroom moom moo ko wàcce woon soxna DG autonome DG bu port autonome bu Dakar buñ ko newoon ciix léegi mu wax leen li xew lépp xam nañu li xew lépp enquêteurs yi tamit ba ñu demee ginnaaw ba nga xam ne commandant euh, bandi ba taxawoon na nee na du ñu def enquête nañu bàyyi lépp ci loxoom ba ñu génnee siiwal ko delluwaat na enquêteurs yi dem laaji Maimouna Ndour Faye Maimouna Ndour Faye nee na du porter plainte déglu leen ma bu baax de nee na du porter plainte na yoon def liggéeyam xam nga porter boo nee damay porter plainte lu ñuy def dama leen di wax enquête nu muy demee ngeen laaj ko ñi xam enquête gendarmerie man xaw ma ko waaye enquête nii lay deme boo bëggee porter plainte lieutenant colonel Abdou Mbeng moo ne woon léegi réquisition yëpp nangu na ko parce que dafa doon bañ gars yi def ay géolocalisation xam lan mooy lan fa mun Maïmouna Ndour Faye newoon ku mu àndaloon ba dégg ngeen Abdoulaye Seydou Sow bu ko woo ay ñu naan leen diw ay ñu naan leen daa ay ñu naan leen lii ay ñu naan leen laa ñu leen di indil ay débat yu bari jusqu'à l'extinction du soleil dafa am loo xam ne bëgg naa leen ko leeral laaj leen may Maïmouna nduur lan la doon def diggante ba mu wàccee une heure du ba quatre heures ba mu ñibbisee loolu benn la benn rek la enquêteurs yi lieutenant colonel Abdou Mbeng commandant de la légion ouest te mu ne commandant section des recherches ba ñu demee laaj may Maimouna Ndour Faye daf leen ne du porte plainte na police def liggéeyam na yoon def liggéeyam xam nga loolu mooy lan parce que soo porté plainte dama leen di wax li xew soo porté plainte dañ lay ne ah donc diw moo la doon def lii diw bële moo la doon def lale donc bëgg ngaa porté plainte diw après léegi li ñuy wax da ngay ubbi li ñuy ne de Pandora box maanaam ki la gaañ ak li tax ñu gaañ la ak coow lu bari li yëpp day feeñ parce que ti as porté plainte mais nag boo porté wul plainte daanaka luñ ci yoon mënati bariwul nee na na yoon def liggéeyam donc fa la ñu yem ci enquête boobu dinaa ñëwaat nag encore lépp lu ma ci xam ma yëgal leen ko mais encore une fois jusqu'à l'extinction du soleil di nga gis ñuy dof doflu naan xëcc na saagam saag bi deux million moo ci nekkoon dama leen di laaj mes amis yéen samay xarit ngeen a Ndour Faye mu jóge këram di dem liggéeyi ci ab télé lan lay doyee deux millions de francs CFA ci biir saagam ne leen ma encore une fois ñëw leen ngeen ne chef de service la patron de service la moom jaayul banaana jaayul orange jaayul pomme jaayul mango n'est-ce pas lan la Maïmouna Ndour fay di def à quatre heures du matin ak deux millions de francs fa ci biir saagam d'accord paaka mburu loolu mooy amateur amateur la parce que bu leen fàtte ne jabaru DG bu port moo yebalaate pour ñu lijjantil ko may Maimouna Ndour fay donc bu leen fàtte ne c'est pas des professionnel tueurs la dem jëli ay bandi la rek benn gàngoor bu ndaw rek ay xëccal fii dóoral fii dagg leen karaw gi umilier leen ko jóguñu pour rey ko yéen xam ngeen ne bu ñu jogoon pour rey Maimouna Ndour Faye elle n'est pas si forte boroom da koy jam paaka paaka rek boo ko jamee biir boo ko jamee nit ci biir boo ko jamee nit ci biir deux fois trois fois mu dee Farba Ngom moo ko ko jox Farba Ngom Maimouna Ndour Faye di journaliste mu war a dox ci déontologie mu war a dox ci njub mu war a dox ci def liggéeyam kooku lan lay xaar pour Farba Ngom ñoo def émission ba pare di ko jox deux millions xanaa émission bi c'était commandé loolu laa bëgg a xam man munumaa yërëm ndey Maimouna Ndour Faye Maimouna nduur fay dafa bokk ci ñi toroxal Ousmane Sonko sosal ko duulal ko fenal ko yàq deru jàmbur te mu am ay doom mu am ay soxna donc man bu leen xaar ci man pour ay yërmande man doxuma ci ay sentiment ndeyam te nee naa leen gis nga sénégalais yi man li ngeen di yëg seen yaram man duma ko yëg man bi ma jógee ni kaldu laa lekk ba sama xol bi sedd bu ma paree ma jëw tem tëdd di nelaw ba sama yaram tànk bu ma yeewoo suba bu ma neexee liggéey bu ma neexee bañ a liggéey donc li ngeen di wax ak li ngeen di def sama je m'en mais dinaa wax dëgg bi ndax yàlla dëgg la bëgg Maimouna Ndour fay man duma ko yërëm man ñëwuma fi pour yërëm Maimouna Ndour fay man dama ñëw fii pour wax dëgg rek te yàlla tax voilà man ñëwuma fii pour yërëmaatee déedéet dama ñëw fii pour wax dëgg te yàlla tax yéen est-ce que xam ngeen li Ousmane Sonko subir est-ce que xam ngeen Ousmane Sonko famiyam lan la ñuy dund est-ce que xam ngeen ay ay ay soxnay Ousmane Sonko lu ñuy dund est que xam ngeen Ousmane Sonko famille am yaayam Mama Khady Ngom lan lay dund ku am yaay la am soxna am ay doom am ay sœur kooku xam ngeen lu muy dund ngeen bëgg a toog fii benn bandi bu demoon ci ab teleem di jaay yàpp ba ci jaay yàpp boobu mu dem jaay yàpp jëkkëru jàmbur léegi jabaru jàmbur boobu jóg lijjanti ko ngeen ñëw fii di ñu ne voilà nañu def lii voilà focus voilà on va focus mais bu ñu focusoon te leera ñu mbiru Maïmouna Ndour bi ni koon jiiñ nañ ko waa ex Pastef jàpp nañu benn Samba Boy tëj ko fenal ko ne wala waa ex Pastef ñoo ko gaañ ñoo ko menacé ñoo ko def lii est-ce que xam ngeen mbiru Maïmouna Ndour bi mu xewee mois j'ai reçu la première appel à trois heures du matin laa jot appel ñu ne ma ah Tunkara yeewul ma ne leen lu xew ñu ne may Maïmouna nduur de am na ku ko def lii ku ko def laa waaw léegi gars yi am na sax ay ay élément de ñu ne ma am na ku leen koy jiiñ man dem leen jiiñ nañ ma ko man sax nee nañ ma Ousmane Tunkara seen saagakat yi activer nañ leen ndem ba ñu ne leen dem leen ne Ousmane Tunkara bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gaañ may a Ndour ñoom ñoo ko gaañ lu ñoo ko bëggoon rey billaay mi ngi ci internet bi allez écouter dem leen loolu mooy dëgg loolu moo tax ñun tamit ñu ne leen amul problème comme yàlla def na ñu nit am nañu xel te am nañu xam-xam tuuti dinañu dem defi suñu ay enquête ak suñu ay journaliste d'investigation yu am xel yu am xam-xam yoo xam ne xam nañu ñëpp yoo xam ne mën nañu dugg fépp ñu wuti information yi war ñu génne information yi juste et vrai ñu jox ko Sénégalais loolu mooy dëgg donc gars loolu laa bëggoon indi ci contribution ci côté a Ndour leneen li ci des nag comme ni ma leen ko waxee nañu bàyyi Macky Sall mu fooyee xelam bu fooyee xelam ba pare incha allahu rabbi ñun sénégalais yi ñu won ko ne moom baayam moomul sénégal ndeyam Kumba Timbo moomul sénégal ñu jëflante koog moom ba mu saf sap maa ngi leen di sant di leen gërëm incha allahu rabbi bu subaa ñu ñëw continuer ci bëccëg bi waxtaan ak yéen ci loi amnistie bi boo gisee nag may génn lu bari ci heure bii léegi seen crédit yi lay bañ a jeexal dafa am nit ñu bari ñoo xam ne dañuy jooy nee nañ ma grand suñu crédit yëpp jeexal nañ ko ci journée bi moo tax may bëgg a def vidéo bi nii ci guddi gi comme ça bu ñu yeewoo rek ñu daal di ko gis kenn ku nekk seetaan apprécier partager leen vidéo bi nag massivement ñi ko war a jot yëpp jot ko fi mu war a dugg yëpp mu dugg fa waa asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.